borom daaru dem na ba ñëw yéen murit yéen nuy si leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jaar ci dëkk bu tedd bi nga xamante ne bii moom la naa Ahmadul Xadim njëkk am ab dëkk ci kaw suuf ñëw ci kër rakkam ju tedd jii nga xam ne moo njëkk a jaayanteeg moom ci moom sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ñëw ci dëkk bi nga xam ne bi Serigne Touba Khadim Rasoul liggéeyalee lislaam ba lislaam am ndam ci dëkk bi la wàccaat dëkk boobu moo di Daaru Salaam ndigal li nag ñëw ci Serigne Abo Mouhamed Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér. jaar ci buntu kër borom gaawaan yi nag la ko tàmbalee ci kër alhaaji Serigne Takko Mbacke ca Serigne Mbacke ante ne ca bopp ba jaar ci kër Serigne Ibrahima Mbacke Ndar Serigne Sidi Gaawaan nekk ca bopp ba jaar ci kër Alhaaji Daam Serigne Xaadim ne ca bopp ba jaar ci kër Serigne Cheikh Coro Serigne Sidi Mbacke ne ca bopp ba jaar ci kër Serigne Sam Serigne Daam mbakke ne ca bopp ba jaar ci kër Serigne Ibra Astu Caam Serigne Mbacke Anta ne ca bopp ba jaar ci kër Serigne Moustapha Caytu Serigne Modou Mamoun Mbacke ne ca bopp ba jaar ci kër Serigne Abdou Góora Serigne Moustapha Mbacke ne ca bopp ba jaar ci buntu kër yi nag njabootu maam Cheikh Anta jigéen gi la ko tàmbalee ca soxna Faati Mbacke ma Marib taawam ba ñëw ci soxna soo Mbacke bis bi nga xam ne ci la serigne touba khadim rasoul liggéeyaloon borom ñibbi si waat daaru salaam waxoon na nag ijhal rujuhi ila khawmi saadatana wal takfina yawma jamhil khalqi nirana bis bi nga xane mo far suni bakkar tabal ñu aljana bis bobu lañuy ñuy mo wara nek le 19 juin insha allah rabbi ñu tew fi nak téwé ko ci kanam Serigne abou mohammed mu wo njabot gep ñu ma sa tew fi fasiyene wote bis bobu ci ndigalu Serigne Touba Cheikh mamadou Mountakha motax danañ yëkëti kàddu gi jox ko Serigne Mame Balla Gueye mi nga xam ne mooy wax ci turu daare alquran yi ci njiitul Serigne Ndiaga Sylla mi nga xam ne mooy jiite mboolem njàngum alquran mi mu ànd ko ak ñim ko àndal su noppee danañ jox kàddu gi Serigne Asmor Dia moom alaaji Serigne Dia mu wax ci turu sëñ Abdou Khadir ja mi fi wuutu mbooleem seex si nga xam ne ñoo aju ci kër gi yëpp su noppee danañ jox Serigne Sam moom Serigne Guédé mu wax ci turu Serigne Moustapha Mbacke moom sëñ Abdoul Akram mi wax ci turu bokk yëpp nag ànd ko ak njabootu kër Serigne Afé su noppee danañ jox Serigne Cheikh Anta Samb mi wax ci turu comité d'organisation bi bu noppee Serigne Cheikh Anta Mbacke dana yëkkati ay kaddu ci turu Serigne Abo Mohamed ak mbooleem njabootu maam Cheikh Anta gépp xam naa ni ko sëñ Fallou waxee léegi rek ñu bàyyiloo xel daara yi nga xam ni loolu señ bi woon daaw ci màggal daaru salam gi te ñewoon ñewin wo xamni kawé nañ jotu señ bi lool muy ñaan nag daara yooyu yëpp ñëwaat ci njàng maag taxaway bu am solo bobu di jiital daara yi njaareem ak sëñ Mor Mbaye Cissé si Abdoulaye Cissé ak ñim andal àndal señ Bass jeng ak mbooleem ñi aju ci waa señ mali jeng bayu kenn mo leen wo ci bis bi waye day wo wa ndilli ki sëñ ba xel baax baax bis bi bi rafet na lool sëñ Baara Touré waa Madina Touré ak daara Madina yëpp kazalika a itam sëñ bi leen di woo di leen bàyyi loo xel baax a baax bis bi mi nga xam ne daaw kawe na njot lool ba sëñ bi cantam ak mbégam kenn ku ne xamoon na ko daaw ci daara yi waaye di woo waa Touba sëñ El Hadj Ndoumbé Bousso nga xam moo jiite woon waa daara Kamil Touba ak mbooleem daara ji aju Touba ànd ko rabita bi sëñ Xaadi Jaxate mu ngi woo waa daara Touba yi ñu yokkaat ko baax a baax ba sëñ amoon ci mbégte daaw mu amaat leneen loo xam ne mooy gën a kawe luñ daaw la mu ngi koy bàyyi loo xel waaye daara Daaru Salaam yeeg kasalikat bàyyut kenn boo gisee daara Alaaji Ibrahima Dia suñu asmoor gi daara yi ñoom tam bari nañ lool suñ bi woo daara yëpp kenn ku nekk na nga woon daaw nga ànd sa jëwriñ yoo xam day mën a taxaw xale yi ni ñu defee woon daaw taxawin woo xam ni day gën a kayiwaat bu daaw ba suñu boo ngi bàyyiloo xel bis bi baax a baax waa daara yi xam na ni bis bi alxuraan moo ci jiitu te moom la gën a bàyyi xel ci bis bi ak bernde yi kon waa daara yi ni taxaw woon daaw sëñ baa ngi waat ñu gën a taxawaat taxawin woo xam ni mooy gën a kawe gën a ñettate boo xoolee lu daaw la ñu ngi koy bàyyi loo xel baax a baax waaye boo ñëwee ci waa jëmmi rabita bi sëñ Xaadi Jaxate mi nga xam ni moo ko woon daaw rabita bi ñëpp teewit sëñ bi nga koy bàyyi loo xel baax te loolu mat naa ay junni daal luñ teg yooyu moo ngi koy bàyyi loo xel ak yeneen dëkk yi nga xam ni ñi ñuy wax ñooy jëwriñ ñi dana yóbbaale yeneen daara yi nga xam ni ñu nekk ci ron daara yooyu ko sëñ Ebo Mouhamad moo ngi bàyyi loo xel baax a baax njàngum kaamil Daaru Salaam nañ ko taxé won daaw taxin wo xamni daara yi wa waa seigne malik Bari si ñong ngi koy bàyyi loo Cheikh ibrahim ci ñom tam gis ngeen daaw ñoom itam ni taxé won woon daaw sëñ bi bëggal ci ñom lool mo ngi leen bayilo bàyyi bis bi ñu gëna a xel baax baax njàng alquran mi di ñaan yalla ñi ag ci bismillahi rahim génne ci alhamdulilahi rabbil alamin seigne Ibou la amoon daaw ci mbekté ñu amaat lu kawé lool ci dagge sëñ Tuubaa seigne Abdou Khadir Dia mi nga xamné mo won wax ci turu Cheikh si ci ndigal sëñ bi mu am ngant jox nu ndigal ñu wuuti ko fii moo yëkkati nuyoo islam bi gën a tedd ak ziyaara yi gën a yell di ko toj ci loxol sëriñ bi Cheikh eh, Abo Mouhamad ak mboolem kilifa diine yi fi nekk yëpp ak sëriñ si di leen ziyaar di ñaan yàlla suñu borom yàggal leen fi suñu kanam tam may leen wér. ba liggéey bi nga xam ne sëñ bi yéen na ko liggéeyal maam ju tedd ja ànd koog jëwriñam yi ak doom yi ak taalibe yi sama borom dafa ko tawfiq ba def ci lu kawe njort nga xam ne nag moom la ñuy dëgmal mooy bisab magal Daaru Salaam gii ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala may nu ñu àgg ci ak jàmm te ba dafa doon tawfiq nga xam ne moom ni ko sëñ bëgg mu def ko lu kawe njort kàddu yi nag kaddi soññee la ak woote mbooleem seex yi nga xam ne ñi ngi aju ci kër borom gaawaan tàmbale ko ci kër Madina mboolem ñi ci aju ñëpp ak kër Alhaaji Ibrahima Dia ak mboolem ñi ci aju ñëpp ak kër Alhaaji sëñ Mët Njaay Jóob ak kër sëñ Masila Ndaak ak mboolem seex yi fu ci waay mën a nekk rek ci kër borom gaawaan ñëpp ñu ngi lay soññ di la woo di sàkku nga yaatal woote bi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñu àgg ci ak jàmm te ni ko suñ bi bëggee yàlla defal ci am na ko ñu kawee njort kàddu yi ñuy jël ñu ngi koy yël ci turu sëriñ Moustapha moom sëñ Abdoul Akaram moom mi nga xam ne moo ko waroon a jël taam ngànt tax ñu ne ma naa jottali kàddu yooyu ci turam kon euh, ci turu sëriñ bi ñu ngi woo mboole mbokk yi ci màggalu Daaru Salaam gi daaru salaam nag boo nee boroom gaawaan sa sam xel lay njëkk dem ci sëriñ Afia kon ñi ngi woo waa kër sëriñ Afia ah, ci njiitul xalifaam sëriñ Saalihu ak itam ah, sëriñ Abdul Baaxi di woo mboolem njabootuk ma maam maaram gi bàyyiwuñ kenn di woo njabootuk sëñ Mbàkke Moor Anta Sali gi ñëpp bàyyiwuñu kenn ñi ngi woo itam njabootuk sëriñ Bousso bi gépp ak njabootuk saabu si gi bàyyiwuñu kenn di woo mboolem buntu kër diine yi ci réew mi yëpp bàyyiwuñ kenn kër euh, maam El Hadj Malick euh, kër euh, Serigne Canaba kër maam Limaamullah ñu ngi woo ñëpp di woo woo kër Cheikhul Islam Serigne El Hadj di woo kër maam Khalifa di itam kër maam Bou Kounta Ndiass ca Ndiassane di woo itam suñu mbokki xaadir yi nga xamante ne bii. ñoom lañu àndaloon démb jëkk Cheikhuna Ahmadul Xadim sëriñ bi daal mi ngi woo mbooleem ñi nga xamante ni bii ñoo bokk lislaam ji ak fu ñu mën a nekk ak nuñ ca mën a nekkee nee na mi ngi woo ñëpp ci bis bi nga xamante ne bii mooy bisi Cheikhuna Ahmadul Xadim jóge ci liggéey ba mu liggéeyaloon lislaam ni ko sëñ lu waxee léegi mu nekk liggéey boo xamante ne bii